balaa maa def dara ah, sama kër bàyyi ma nga ne maa ngi nuyu sama mag yi fi nekk si naa ma njoor yàlla xam na démb waxtu yi bi may conférence moom moo doon prise ak moom moo ñëw ci digg conférence ba dafa àddina yëpp daje bu président maa ngi koy jox wàccuwaayam coow Baye Ablaye Thiaw muy Seydina Ngom yàlla na yàlla guddal fa may jël nuyoo googu di nga teg ci loxo Seyni Thiaw Mamour Thiaw Baye Panaat ñoom ñepp Baye Ndiambeer ñoom ñepp ñepp ñepp rek ak Mamadou may nuyu sama doomu Baye yi ak dina dafa doy waar su ma fa ñëwee ba dem dañ naan ñëw na ca dëkk ba day nangam di ngeen déglu tuuti. moo tax fii ma toog xel mu dal laa fi toog lii ku ko def caaxaan yaa nga defal sa bopp caaxaan ku am ma xaama ku ne nga wax ñëpp ne est yàlla sax amul la ci àdduna kon yow nit ki yow mii wax nga defe ni ñëpp dañ lay apprécier sa wax yàlla sax amul dina ko am yow man xiyam ba koy amee bu jàmm jàmm ñëpp tëddee yàlla boo waxee kenn bu ci teg ak baat am ne nit ñi nanu sóoraale aha ñàkk wax dëgg li ci ne ak yàqalante li ci ne amul njariñ xool nit ñi nga gasal kat te yàlla pareegul ci moom da ngay sa bopp feebar bi gën a bon mu ne ci nit ñi mooy feebaru tàng xol day rey nit am ne feebaru soxor feebaru jiw nit yàqal nit bu nee nit jiw baax da nga ni baaxul nekk ci deret bi yow da ngay tardé kooku yàlla di gën a yëg te kuy ànd na nga ànd lii tax ma ñëw sama soppi bi bon ah ku am nga xarit sama xarit la léeg-léeg ma la. Ah, ma tàppee moo suma xarit soxna Ndeye Awa moo nu boole woon moom président Boubacar Camara te it ku bëgg jël politique bëgg nga araamal xamoo ne xew nit mën na nekk ca jàkka ji sax du tegu ci yoon nit ne ca politique ba gën la xam yoonu yàlla lan la politique jikko la dem jàkk ji jikko la wa innaka la ala xulqin aziim li gën a jikko lu baax dama xam ne lu baax

ci sutura ci tekki ci wax lu baax bañ a wuññi sutura nit parce que ëllëg am na ku ne la ngay def bëgguloo bëgguloo kenn xam nga waaye li ngay def ak li ngay nëbb yàlla xam na te ëllëg daf la koy fekk bu far fa ngay far far mais bul wax lu bon bul wax lu ñaaw waxal lay defar waaye nag nit ku ne am nga droit ni kii moom a neex ba si am nga ci droit man kii sama soppale sama xarit yàlla yàlla may la may tëjee fi may tëjee li may wax ko boog yàlla na ko defal. هجا قلبي من خيال حسنا وزماني هجا هجا قلبي أين مني أين منه باللقاء وسنزلزل المنصور بالدرج من اللقاء man day di laa xam nii ma koy waxee fii laa koy waxee ba Amérique damay ne nii laay yal na yàlla doon xew boobu kuy toog yàlla yàlla sa aajo ne ñëpp joxante loxo yàlla baal yàlla faj suñuy aajo yàlla faj suñu aajo yàlla yàlla nangu suñu